Daouda Mine merci euh, ñu dem assemblée nationale déglu mooy surna boo xam ni le le six bi nga xamante ni mooy mars deux mille mooy bis bi nga xamante ci la Sénégal booloo ci la Sénégal di dajawaat ci la Sénégal di tàmbaliwaat lu bees kon tey surna pour man pour le peuple Sénégal. di la remercier bu baax waay parce que bokkoon nañ fii assemblée nationale bi sant askan wi nga xam ñoo ma tànn ma fii te askan woowu mooy waa Touba ak département Mbacké di sant xalifa général des mourides di ko ñaal mu yàggatu ak kilifa diine yi madame la ministre loi bii nga xamante ni moom nga indi fii tam nekk loi boo xam dafa jóge ci gouvernement bi muy projet loi aussi man Cheikh Abdou Bara Dolly njiitul parti politique jiite coalition nekkal fi askan bi nekkoon candidat nekk doomu daal nekk chef lycée dinaa woote force loi bi ngir prise leçon man sëriñ bi nee na ma fépp fu waay man di nekk la ma la sant mooy jàmm loolu laa jox ndigal ndigal boobu noonu moo tax sëriñ Bass Abdou Khadre jox ma kaala gi moom laa yore tey taalif yi day firneel ni watee maa ngi sakku sama mbokk ñu wate ko parce que lii président la moo ko indi mais du yëfi Macky Sall du yëfi Ousmane Sonko du yëfi Cheikh Abdou Badoli mais yëfi peuple bi la parce que jàpp naa ni am bu tolloo fenn fi ñun ñëpp war nañoo mën a maase fàtte jéggalante baalonte dem ci kanam parce que tant que ñu ngi wax lu ñaaw tant que ñu ngi wax lu bon tant que ñu ngi déglu ay nit yoo xamante ni tànk ay mi nga am ñu ciy dund di dem bitim réew day la xaalis di saaga askan wi nekk ci plateau yi fexe ba jàmm du am tant que ñu ngi déglu noonu du ñu wati loi bi te man d'accord naa pour ñu wati loi bi pour ñaar raison Ousmane Sonko sama xarit la sama doomu ndey la tey kaso bee mu nekk yéenuwuma ko te luwaay bu jàllee dana génn dem fekk ak njabootam parce que ku watuwul luwaa bi da nga bañ Ousmane Sonko génn si kaso bi kooku si asimi dinaa wat luwaa bi di wax sama benn boo ko yaakaar Macky Sall fukki at ak ñaar lu nekk defal na leen ko lu nekk jiñ na leen ko def na si réew mi lu nekk bu desee ay weer mu bëgg a dem indi leen bi ku ko watu da ngaa trahir Macky Sall loolu tamit sama responsable parce que réew dem feneen koo ko def jaam nga te war a trahir d'accorduma aussi ñi nga xam dañ fay nekkoon fukki at ak ñaar ànd ak Macky Sall tey ñu jóge ci Macky Sall ngir seen intérêt bopp ñi sàcc suufu dëkk bi ñi sàcc xaalisu réew mi tey ñu nekk ay candidat bëgg a opposition bi bëgg leen tere prison loolu d'accorduma ci Sénégal pour tous Sénégal pour tout Sénégal ci kanam jàpp naa ne réew mi c'est pas la première fois loi amnistie am ci réew mi bii mooy fukkeelu loi amnistie boo xamante ne am na ci réew mi président Ablaye Wade tey bu ba nee nekk président de la république ba def mission def ñaari mandat dañ ko amnistie moo tax mu nekk ko te tooñu toon ñun amnistie nit taxul yow yaa tooñ képp koo xamante ni amnistie na la nga récolte amnistie boobu defar réew mi day la réew mi parce que ñun président Ablaye Wade mooy suñu mentor mooy suñu royukaay li mu def ñun réew bëgg sa bopp amuñu benn pression bu ñuy dund man li ma ñor moo réew mi damaa gis sama parti bopp dëkk Touba képp koo xamante ñëw nga Touba bëgg Touba bëgg département bi boo wuxtak man doo ko gagné loolu moom mooy li wér monsieur le la ministre boo xoolee lu wax am na si li ma ko waxee am na si lu wax am na si boo xamante ni bi ñu koy def Abdou Diouf di ko def booba robel yi nga xamante ñoo nekkoon Casamance amul sax gisement pour jàmm la woon te robel yooyu am na si ay jamono yoo xamante ni juróom benn fukki nit faat nañ si benn suuf loolu lépp ñu muñ ko pour tàpp xol yi dajale boole sàmm kon tey jii képp koo xam ne watu woo loi bi da ngaa trahir peuple bi da ngaa trahir Ousmane Sonko da ngaa trahir Macky Sall da ngaa trahir ba su ma nga jox salaamaaleykum wa rahmatulah. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Guy Marius Sagna, suivi de Modou Baragaye.